waaw déjà demandé naa benn forage waa OFOR pour ñu renforcer ko château d'eau sax laa leen demande mais aussi jas euh, dafa am ñaari système yu fiy dox muy système mu Sen'Eau ak système mu aquatique am na wàll wam ne bii kii moo fa nekk bii ke nekk fa man jàpp naa ne il faut ñu dem vers l'harmonisation loolu naa ci waxtaan ak ministre bi yor wàllu ndox mi ak service am mais laata loolu war nañu góor góorgóorlu ba ndox quand même egg ci jas am na ay efforts yu ci am mais dinañ ci gën a liggéey ak les structures de l'État ku wax ndox aussi wax ndox ku taw ak yàqu yàq-yàq yi ci am ak ndox mi nga xamante ne ci égout yi leen nekk ak ci euh, ci fosse yi ñu war ci wut ay solution loolu waxtaan nañ ci waa ONAS pour que ñu defaral ñu benn station buy traité ndox mu salte boobu nga xamante day jógee ci fosse yi mais également ndoxu taw yi buy ñëw nan lañ ci war a liggéeyee dan jàpp nañ ne ges war na am ay bassin pour que suba au moins sàmmkat yi am fu ñu nandalee seen euh, seen jur gi sans compter ak yeneen ak yeneen mais yooyu yëpp nag boo ci waxtaanee ak structure yi nga xamante ne ñoo yor loolu ci wàllu état ñooy dañ lay dañ lay jàppale jàppale bu dëgër tey jii ba ñu gisee waa ONAS ak directeur de l'assainissement li ñu njëkk liggéey ak ñoom mooy ñoom tey jii lancé nañu benn appel d'offres boo xamante ne pour plan directeur d'assainissement wu Diass ñu am loolu déjà dina permettre intervention yi gën a gën a yomb